man xale laa du ma yërëmee te du baale. waaw xale du sonn day xiif rek. te góoru nelaw day noppalu. waaw am nga raa noppalu. taxawal dëggal sa bopp ma duma la daan la. loolu musul wax. da ñëw pour xeex ak man. maa lay xaar. sama wax ak yow du bëri. jërëjëf suñ mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay tey nag dañu ñëw fii ci santé wu Pikine bi fekk si fi Pape ñu am ay combat yoo xam ne dañ ko fee nar a mooy combat yi nga xam ne moo war a am vingt 27 février yaakaar naa ne combat préliminaire yëpp yemb na ak rent DK ku ci mel ni Jimbo ku ci mel ni Ale Pape Sarr ak Jogay ak structure rent DKR bi yëpp. combat bi taxaw nag mooy combat bi nga xamante bi nii mooy combat waga bi combat plénière bi dañ leen di présente bu ko defee yaakaar naa ne ñu yeewu leen kii ñibbi caaro yi kii ñibbi géejawaay yaakaar naa ne kii mooy bébé garga bu école de lutte Balla Gaye la def 4 victoire. kii mooy pram 2 bu école de lutte Boy Niang deux combats la def deux victoires dañuy nuyu bébé Garga yaakaar naa ne bàyyi ko mu nuyoog mbokk internet yi maa ngi lay siyaare Garga. maa ngi lay delloo mu doon di la jox sa waaj waay sant bu wér di bëggee gars fi nekk yëpp di nuyu sama adversaire mm-hmm. di nuyu ñi nga xam te ne ñoo organisé événement bi mm-hmm. di la nuyu baax di nuyu ñi ma àndal mm-hmm. ok maa ngi nuyu ñëpp. macha allah am na solo pram de maa ngi lay siyaar. delloo ginnaaw bañ sant yàlla julli si yoon di sant suñ ñaari waajur eh. di nuyu suñ papa yu fi taxaw yëpp yëpp di nuyu sama gaay di leen siyaare waa boobu ak mafia bi mafia sokolaa bi maa leen siyaar di leen nuyu waa noonu la fa demee di nuyu sama adversaire ah mm-hmm. waa di ko di ko tàttagal ne ko ñëw na sama zone macha allah am na solo combat bi taxaw vingt 27 février nekk combat boo xamante bi nii avant première Balla Gaye 2 la ak Boy Niang parce que kii poulain wu Balla Gaye la kii poulain wu Boy Niang la sa diggante Bébé Garga nan nga far nan nga far yéene jëflante moom la 27. waaw Bébé Garga xam nga moom dañoo ne bébé la. waaw waaw dañuy moom jëf bébé rek bu suur ba incha eh. ñëw bébé dañ koy tatagal. Eh. teg ko fi mu place am na ko bébé nga yemal fii fii nga war a yem. Eh. barki yonent bi. waaw amul leneen. dina am xeex. lamb ji am na lépp. lenn laa koy waxal booy yi ñoo ma yóbbante de. Hmm, nee nañ na moom nee nañ ko moom Bébé Garga booy yi dalul lii ma la wax bu baax booy nee nañ Bébé Garga Seyna Seyna teelul lii booy nee nañ bu ma jekkoo man moom bu ma jekkoo bu ma moy yow yaa ko yore man nag bu ma ko jekkoo bul xam lu ma e def bu mu la jekkoo bu la mooy yow moom bu la jekkoo bul xam lu mu lay def waaw di nuyu sama papa Mbës mm-hmm. ñi ma àndal mm-hmm. la joor mm-hmm. dugaar njool mi maa leen di bëgg bu baax baax lamb la rek lamb moom xeex bu ñu organisé la rek moo tax seet xeex bu ñu organisé ah waaw xeex bu ñu la rek waaw Mbës lu wax jàpp daan rek loolu lañ ma yebee. Lat Dior lu mu wax. jàpp daan école de lutte Dugaar lu mu wax. ñoom ñëpp jàpp daan. amul leneen daan dina yàgg. lamb non mën na yàgg mën na yeex. ça dépend ci moom rek. Mm-hmm. waaw ayca wooteel. waa di woo waa Guédiawaye gi yëpp. ayca mi ngi noonu yaakaar naa ne combat bi mooy komba spécial Mbaye Gouye gi ak sarko dox ci diggante Tidiane fay numéro 2 nga xam ne këll gi la mujjee daan fële ca Bargny yaakaar naa ne noonu la demee fële ca Tëngéej loolu grand combat la woon dox ci diggante ma Yankaw Junior Kaw Gourdin la mujj bëreel combat ba nag coow bari na ca xam naa ne moom dina ko expliquer waaye di leen wax na leen kii Lamine Seck yaakaar naa ne war naa toog lu war a mat 5 yaram bi laalu suuf ci lit avec frappe yaakaar naa ne ñoom mbay Sempeek ñoom Brice Temer ak ñoom caatu yëmbal ak xale yu bëri jaar nañ fi waaye ki muy bëreel di doomu mbay fay ki muy bëreel di doomu Ndangal ma ki muy bëreel di doomu Agiyaay di doomu Kër Samba di doomu Touba yaakaar naa ne kii tamit di doomu lébu waaye digganteem ak Cheikh Kayma digganteem ak réparé moo ko njëkk jox defet digganteem ak fils de Salo mu am ndam ci kawam digganteem ak bébé Kele yaakaar naa ne baat ak tontu la damay nuyu Tidiane Faye bàyyi bàyyi mu nuyoo mbokk internet yaakaar naa ne ñu wéyal waxtaan Faye de maa ngi lay siyaar. maa ngi lay bëggee Modou Anta di siyaar euh, ñi tëgg lamba ji di bëggee caméraman ni Lamine ak gars yi fi nekk di nuyu tamit ki ma àndal Mame Niaw di sama adversaire di leen jox seen wàccuwaay bu baax. macha allah Yankoba maa lay siyaare. waaw bisimilah bisimilah. di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba. ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur di sant suñu Serigne Cheikh Bass Mbacké di ko wax balay sa dundal yàgg fi loolu te wér di nuyu fi ñu jógee muy benn tali biscuiterie ñaari tali Grand Dakar waa NCB bi waaye ñu kenn du nuyu waa Mbombay waa Saloum Samba Gueye Toubacouta waa Karang ah, waa Gambi maa leen di siyaar bu baax a baax du nuy waa tubaa Fall waa Gént Gueye waa Daga Samb di nuyu waa Kanel di nuyu waa Canal bu baax a baax a baax di nuyu waa Colobane tamit di leen wax ne seen doom a ngi nii am na combat le 27 février di wax ñu ñaanal ma suñu borom may ñu ci ndam di ci woo ñëpp di wax ne ñu wax ñu ñaanal ñu defal ñu jàmm di nuyu sama adversaire tamit di nuyu ñu ma àndal ku ci mel ñagas 2 ak Omaran ak Cheikh Mame Saliou di nuyu képp kuy bëggee Yankal Junior nag macha allah am na solo Tidiane Faye lan moo la dugal ci Yankal Junior nga xam ne toj na mbapat yi toj na arène tamit yaa ngi ci mbapat yaa ngi moo la dugal ci parce que comme dañu nangoo ñi ñi war a bëreeg man nangu ñoo bëreeg man. Mhm. moom pare na pour bëreeg man. Mhm. moo tax ma jël ko rek. Sénégal da yaa fi gën a naqare wutal adversaire. neexuma wutal adversaire. lu tax ba nga xam xaw ma lu tax. Mhm. xëj na gars yi li tax duñ ma nangoo jël ñoom ñoo ko xam. mais moom bu yàlla defee mu nangu koo jël kay. ah nañ ñaan yàlla ba jour ba rek incha allah. ñaar ku dàq bëre. man daal xam naa ne sama mën a bëre laa kippé quoi man jàpp naa ne képp kuy takk ngem si àdduna maal dàq bëre. am naa si waaw maa fi dàq bëri. xeex bi xeex bi. xeex bi waaw bu boobaa daal dinañ dinañ dinañ gis daal incha allah. naa metti comme sa takkusaan ak brise de mer. waaw mën na métti comme quoi que mën na yomba. ndax xam naa ne bu saay bu bu taxawee moom lu mu indi rek incha allah dina ko fekk. nee na boo taxawee du yàgg. waaw li may wax ne man combat bi moo ma ñor ak li ma ci war a def di woo samay supporter di wax ne Yankaw daa am fu ñu koy séntu lamb du fii nii di wax samay supporter ak ñi may jàppale am nañ combat combat bii classico bi la tëj buntu boobu noonu jaarale ci beneen paas di ci woo ñëpp ñu ngi siy jàppale di ci woo mafia yokkal ma jaala bi waral a woote non dama war a tëj instant bi nii porte bi am feneen fu ma dem combat bi di wax wala genre waaw ñu arrêté tuuti sa combat am na lu ca xewoon ndax yëgsi na ci yow wala lan nga ciy leeral ahlu làmb ñi lay seetaan loolu ma ci wax sama combat bi bu jaale lu bëree bëri dina leer ci làmb lan moo tax lu bëri dinaa ko leer ci làmb mais damay off loolu noonu ba bëri combat bi ba pare di wax ne samay mbokk laay woo ko combat bi. waaye nee na boo taxawee du yàgg ci yow lay dépendre. di woo say la ñuy mujj. bi combat bi ma lu ci wax amul leen lu ma si wax ci combat bi jëf laa ciy def di woo samay mbokk ñu jàppale ma si di woo ñi nga xam ne ñooy ñoo may jàppale ci combat. xanaa boo woot boo wootee moom dernier bi doo woote nañ taxaw ci làmb ji li koy jaay ba pare sa digganteeg Tidiane fay mii nga xam ne toog na 5 ans wala 7 mbër féetewu ko kaw lan ngay wax si moom. déggoo ma de daan fu këll gi daan caatu yëmbal ay ñoom brise de mer bëre ki ndaanaan kër liggéey caatu yëmbal nga wax Dóor Mbay Sempi Dóor Mbay Sempi yaa ngi ko si yoon ngay waxal jasaaka Baay Faal bi sama papa dina ma xàll woo gis yoon la yoon woo gis dëkk la jëm te faw ma yegg nee déggoo ma de xeex bi dina yàgg du yàgg su ma taxawee loolu lépp dinañ taxaw dinañ bëre maa ngi lay ziar maa ngi lay ziar di nuyu mbooloo bi fi teew yëpp di nuyu Yann Kaaw di nuyu Tidiane Faye Diop mm-hmm. mm. si loo nekk sant yàlla ci liggéey bu metti rek mais combat mafia bi ma fi surtout lépp sax ay combat mafia la mais param de param 2 bébé garga njardeem la. yaakaar naa journée bi liñ ci taxawal yëpp su ma juumalee combat amateur la comme ni ma waxoon départ ñun amateur lañ fi nekkal nekk lu ma nekk lu ma fi kuy nekk lu ma fi kuy ñëw di jaxase di fitnal ki moo àndal mooy supporter mooy amateur lu neex amateur laay def moo xam dina ñëw dinañ ñëw en tout cas lu may def na leen neex point voilà. Mhm. Mbaye Gouy Gui ak Zarko mën nañ cee xaar ay surprise ñu ngi nii di commencé ñi fi toog tey yëpp gis nañ li fi xew. ku ne xam na ne combat bii nii kii tegale na victoire kii ñëw jël avance am yaakaar na mun na koo daan kii bañ a jóg ci dynamique bu mu nekk param de léegi ba mu déparé gis nga fi coow li fi am kon nañ ñaan yàlla àgg ci bés bi ci jàmm ak salaam bari ko ci bisimillahi mu jeex ci alhamdulilahi rabil alamin match bi tas aussi tamit yaakaar naa ne am na yeneen question yoo xamante bi nii dinaa la ko laaj amateurs ko yóbbu yóbbante fan nga toll ak ñoom ci bii yi bon billetterie bi instant bi nii semaine prochaine dinañ leen communiquer lépp lu dem ci wàllu billet yi mm. que loolu wàllu partenaire yi ñuy liggéeyal la mm. donc nañ ko doon defee rek bu jotee ñoom ñoo koy defee defeewaat noonu mm. voilà mais incha allah rabbi billet yi dina accessible pour ñëpp parce que li euh, il faut ñu xam tamit ne sponsor amatul ci làmb promoteur billetterie kese la yaakaar donc mënoo jël de 15 millions war a jaay billet 10 millions di perte 5 millions kooku nag wax dëgg yàlla bëgg-bëgg li ñuy def taxaw ñu dagg suñu loxo di sànni mais nañ ko def billet yu abordable billet yu accessible ku ne mën a ñëw si jàmm ak salaam incha allahu rabbi voilà yaakaar naa ne aussi tamit ba tey dañuy taxaw bala ñoo bàyyi Yankaw ak Tidiane Faye bala ñoo bàyyi Pape Sarr mbay Gouy Gui ak Sarko ñaata face to face la ñuy amalaat ci li nga xamante ni mooy avant le 27 février. waaw mooy lu ma la wax rek liggéey bi dafa am ñoo xam ne dañ ko teg ci seen loxo muy structure Buzz Pro ak Lutte TV te lépp lu jëm ci wàllu. seen lamb TV seen lamb TV donc ñun lépp lu jëm ci organisation man de wax dëgg yàlla sama nekk xam lu ñu ma sant taxawalal ay combat li ci des ci liggéey bi ci promotion bi ci face to face ak lépp mu ngi ci loxo lamb TV ak lu TV euh, Buzz Pro ak Momo Audace voilà man aw dara dara loo xam ne ni mun naa ko ci wax ñoom nag ba leen dëkkee micro dinañ la leeralal ci li ñu programme te xam naa ne ñu ngi ci liggéey bi voilà. lan ngay wax man produit diaspora la tey jaspora laa jógee ñëw fii dërëm bu ma ko amee ginnaaw yàlla ak yonent bi sama barke waajur yi jaspora jàppale na ma donc mënumaa dem sans ñoom te lu ma amit si ñoom laa koy delloo di leen di ci woo comme ni ñu leen wooyee woon ci journée wax xam ne dañu ci accompagner yëpp ñu wooye ñoom toldo di woo ñëpp ñu fa nekk nañ ñëw jàpp ci événement bi jënd code yi ñu seetaan ko ñu leen di defal lu leen neex saa su ne incha allah bu ñu doolelee rek ñu gën a ñeme gën a tëgg lu neex waxtaan ci dañuy toog euh, ay deux heures du matin une heure du matin man ñu toog waxtaan si mu ñu toogee tamit moom tamit euh, si lañ la si dugal ni Jimbo wax ma ma rafet su ko nag trop wax dëgg yàlla muy ñoo xamante ni ñëpp ñoo bokk benn xalaat wax dëgg yàlla lii nii nga tax lii ñu taxawal nii wax dëgg yàlla lu rafet la daal waaw surtout waa Lutte TV bi tamit def ci liggéey bu am solo ñoom tamit mention spéciale parce que tey bu yëf yi eggee ba fii mun naa leen ne buzz la ak Lamine surtout yow. waa diaspora bi rendez-vous le 27 février. non ñoom dama leen di woowaat rek jël affaire bi yëpp teg ko ci loxo Seexuna Si Toldo dégg nga ñoom dam koo teg seen loxo wax dëgg yàlla ak Toumani surtout Toumani maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax xam nga di woo waa bi yëpp xam nga drapeau bi nag bëgg naa ko tuddee suñu suñu monsieur le maire Lamine Gueye waaw. macha allah <laughs> waaw jërëjëf Pape looy woote. waaw beneen combat ngi ni dox ci diggante ki nga xam mooy Pouye 2 ak ki nga xam ne mooy Boy Sila bu Bosco Saw kii yaakaar naa ne ressortissant de la nekk kii mooy Boy Sila borom mafia bu dëgër bi maa lay siyaar. siyaar naa la ya jox sa waaju waaye ginnaaw bañ sant yàlla jul si yéen di sant suñu ñaari waajur di sant njaboot seen Cheikh Sadou yëpp di sama sëriñ sant bu baax di si combat mu ñëw jàpp si taal bel xeyaa waaw. macha allah maa lay siyaare Pouye de borom mafia yoole bi waaw naaj noonu la demee onze billah bisimilah inna waali bu ñu sante yàlla jublu si yonent bu tedd bi di sant suñu ñaari waajur di nuyu sama sëriñ sama xarit muy sama papa di nuyu sama waa dëkk waa Canaba bu baax di nuyu waa Daara Jolof waa Fouta di nuyu tamit waa Kër Massar hmm. Malika montagne Mbëbës hmm. di la ziar ba nga laaj ma leneen macha allah leneen li ma lay laaj dama ciy taxaw muy daj dëpp gi lan moo la dugal ci kii nga xamante ne adversaire bu ñu ko andil mu daw waaw la mbër la dañ ko koy nangul ñun tamit yaakaar nañ ne am na lu ñu mën si làmb te ñoo ngi suñu yoon di dox di dem te daa am fuñ bokk mu am nu mu demee ñoo am fuñ teg suñu bët kon bu ñu xoolee ci moom di am lenn lu ñuy sóor rek kon fi ñu teg suñu bët amuñu fa place waaw dama jàpp ni fekkee moo ko boole sama yoon waaw. yoon bi fekkee moo la ci boole. waaw yoon boo gis fekke moo la ci boole dafa naa ne fu la di fekke boole woon leneen lay xew. incha allah. kii si kàttanu yàlla. Hmm. naa ko corriger. da nga koy corriger. dama koy corriger allah rabi. nee na dina la corriger kenn amul kenn amul garabam. non loolu ay posonu jinax la duñ ko laal. waxu mbër la. nee na loolu posonu jinax la nee na loolu waxi dof la. miin na lu wóor péng la waa Fuuta xam nañ loolu. xalpulaar wi ma sara xaange yaa eh, doole. Eh. o xaangaaka o xewaani doole. ñibbi nodda waa Fuuta foofu. yabe ngar jagee combat waa mairie cokka ewon fof ngare jagge combat o mi liwowoɗo wona miinomako ko dow jahan mi sohla jaawi nee na mi woo waa Fouta waa Fouta na leen xam ne seen doom woote na dafa soxla combat bi maa ngi woo maa ngi woo waa Canaba bu baax di leen wax seen doom dafa soxla combat bi bu tàkkusaan si maasee wàcc ba per yi fekkante si suuf si kàttanu yàlla lu nekk sama kanam maa ko moom bu soobee suñu borom nee na ji commencé lëndëm nee na ki doomu susu bi lay waxale ragalul lool noonu waa Guinée ñëppay ñëw jàpp si combat bi Conakry ñëppay ñëw amul kuy des. mais nee na bu jant bi langee heure boobu ba gaa yi lagg. mooy baax baax bi. ba bàyyi leen yaa ma ji dalaa la ji commencé. mooy baax baax bi taxaw ci kanamam mooy borom. kii ànd sama kaw rek ànd xam nga ànd cuuraay koy fekk ci kaw saxaar bi nii lay def si kawam après lay na ànd nga ci kawam. bu booy kenn du ay pooj yu xasan nga ci jëlee mbaa nga arrière sori ko damaa tàng jër. nee na mbër muy tàng moo la gën a tàng. kii tàngul tànguluwul yàlla mi ma tiim xam na ne maa moom laa mujj neex la parce que dañ ko gëmloo ne booy bi yaa ko ëpp doole yaa ko mën te loolu loolu loolu nekkul. nee li la gars yi gëmloo nekkul. ëppoo ko doole daa dëpp carte gi. daa dëpp gi sama lakkal bi lool li mu ko wax nee na man na naa lekki poñse ça veut ñoom ñoo ma ëpp doole. moom damaa lakkal <laughs> ça veut ñoom ñoo ma ëpp doole mais lu garaaw la wax man moom làmb buy neex la parce que ñaari xale la adversaire adversaire ni mu ko jafe woon noonu la ñu xaw a jafe mu nekk si yoon ma nekk si yoon li ma waxoon rek ñun ñaar amul kenn ku ciy perte làmb moo ñu boole ay xale yu ndaw lañ dañuy wute ko am suñ borom moo la may mais maa ngi ñaan yàlla suñ borom may ma ndam si kaw waaw maa ngi woo waa Canaba bu baax a baax di woo waa Kër di woo waa di woo Tëli bu xonq di woo waa Magadane maa leen di woo bu baax a baax ak juróom-ñaari mafia yëpp maa leen di woo ay tout tànk ñoo may supporter esati la jëm 3 secondes mënul yàgg ndax bu may génn tout tànk dañ ciy sonn kon dama war a dugg vite fait génnaat ndax ñu gisaan ma balaa ñuy nelaw. ak a dégg looy woote waa jàmm gën waa Sicap Mbao lu wax juubul le dafa war a gaaw vite fait VFL lay doon incha allah te dinaa ko ko def moom. waa di woo waa jàmm gën Sicap Mbao Fora Tëli Maam Jaara Sam Sam waaw baax yaay. di woo mafia yëpp yu fa nekk maa leen ziar di leen woo sama combat bi nañ ñëw jàpp si bu baax a baax. ah. ayca ñagas de école de lycée Cheikh Mbaba daa mel ne caatu Kaasa ñëwul de. waaw auzu billaahi mina seytaani rajiim ginnaaw ma sant yàlla julli si yonent sant ñi fi teew ñëpp di mbooloo mi. waaw sant bu baax moo daan doon. di sant Lamine gars yi fi nekk teew yëpp ñoom Jimbo ak sama promoteur yi ñoom Jimbo ñoom Pape Sarr sama grand frère maa ngi sant leen caatu kaasa 4 combats la am 4 victoire sànq nee na ma ñoo ngi doon ñëw mais seen moto moo sofe xanaa gàllaaji maam yi la. a ah, loolu xaj na mën na ci am nag waaw ah, mën na ci am de <laughs> waaw gis nga noonu la demee nag. ok lan nga koy yóbbante. moom wax ji jaru muy bëri quoi. Hmm. waaw di xaar rek jour ma def la ma daa def rek ndox du bàyyi yoonam. la nga daan def mooy la waaw teg tegi rek. 4 combats la 4 victoire la am. man nag ñaar la am. yow 3 nga am 3 victoire. waaw gis nga noonu laay defaat rek tegaat si. Hmm. moom laa waaw moom teg quoi. Mm. moo nekk sama quatrième bi. école de lycée Mbaba la mujj daan sa doom day Cité Cité Cité bu Grand Dakar. waaw xëy na nag foofu lay tourné quoi ci man lay tourné dootu fa dugaat du fa dugaat ci école ba. dootu fa dugg du fa dugaat. ayca wool say mbokk. ginnaaw bi ma sant yàlla maa ngi nuyu gars yëpp waaw ñu fi teew ñëpp waaw di sant bu baax sama yaay mm. Ouma Fayam ak sama papa mm. maa sant waa Kombelaan ñëpp ak waa Kolobaan waa Refan waa Newran waa Touba Toul waa Réew waa Njaan waa di sant sama grand frère Boy Pouy day soon si man di sant sama grand Cheikh Diouf maa ngi ko son bu baax a baax aw ma fayam di sant sama grand frère Tafa jon ak mustafaa Ngoti kooku moom sama lépp la di sant sama yaay awlo bu baax a baax a baax kooku moom ginnaaw yàlla moom wax dëgg fa yàlla taxaw na si man bu baax a baax maa ngi ko sant di ko gërëm di sant sama mbokki ferrailleur yëpp waaw ñoom Abdou Ndiaye ñoom Cheikh Tine gars yi maa ngi leen sant leen bëgge di sant bu baax a baax sama waa koñ Colobane waa Cité Baraag bi may moom sant tuuti rek ah, waa Colobane ñu war a sant dafa bëri noonu après li ci des ci kanam la. ayca yaakaar naa ne beneen combat ngi nii Bébé Saloum 3 école de lutte Doudou Baka ak ki nga xam mooy fils de Serigne Ndiaye nekk fële ca Rëbës yaakaar naa ne kii poulain wu double moteur la kii poulain wu ki nga xam mooy caat bu boy bambara maa ngi lay siyaare Saloum. waaw maa ngi lay di siyaar waaw bu ma sant julli si yont bi sant sama ñaari waajur di sant gërëm sama ñaanal sama papa fu mu tëdd yal na ko yàlla yërëm te ko àjjana ak mbooloo ku mu fa fekk yëpp ah, man nag kii lu ma koy wax moom bëriwul quoi maa ngi koy ñaanal jàmm ñaanal sama bopp jàmm ba suuru combat ba mu ñëw quoi maa am lu ma ko defal mu dem ñibbi quoi. <laughs> maa lay siyaar fii de Serigne Ndiaye doomu Cheikh Diaw. waaw loolu la yàlla dogal ñoo ngi lay delloo ziar Mourou Anta ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent di sant ñaari waajur di sant di ñaanal sama Serigne sin jili Abdou Fata yàlla defal ko jàmm. ñoo ngi nuyu ñëpp di jaare ñëpp di nuyu sama adversaire comme ni mu ko waxee ah waaw noonu la demee waaw. xanaa da ngaa woor tey. non demewul noonu damaa ndékkeegul yaa ma yee ci man mii ndékkeegul. waaw noonu la demee yaa ma yee ci lal mooy xam naa loolu tax na. kon mën nañoo woor waaw mooy loolu noonu mën naa nekk. Mm. waaw mais nee lay wax bëriwul suur rek la sekk ak yow defal la bagage. ah, ah man de leen laa koy wax. Mm. fils de Serigne Ndiaye. fils de Serigne Ndiaye. Ah. su fas njël la tuur waru ko. su njël la. su ngu fas njël. képp ku doon bool bool. xam nga lan mooy su ngu fas njël dama koy xamal ne fils de Serigne Ndiaye sungu fas njël la tuur waru ko. wallaay ndeysaan nee na fils de Serigne Ndiaye sungu fas njël bu tuuroo yaay du reer baay du reer maam du reer. moom day tuuru de ñun ay Saalum Saalum lañ ñun ragaluñ dara. may woo waay Saalum yëpp eh, taxaw ci combat bi sungu fas njël. leen laa ko bëgg a xamal Saalum ni samay maam daan naxee maamam noonu laa koy naxee. <laughs> na bu njëkk njëkk ak léegi du benn am na différence nee na maamam nax na sa maam ba taay. <laughs> loolu loolu mën naa sët moo koy jël. la ca la ca maam sët moo koy jël. nee na maamam nam daa naxee sa maam ba tey jóge moo daan du sët bii kii su ma ko jàppee rek combat bi jeex. ayca gars yi yaakaar naa ne beneen combat ngi nii boo xamante bi nii yaakaar naa ne ahlu làmb yàkkamti woon nañ ko namoon nañ ko kii ma taxawal nii di Pokola Balde yaakaar naa ne xam ngeen ko ci Kër Fallaye keneen kii sama wet boo ko ci njabootu Papa ñu naa koy Papa Kane numéro 2. yaakaar naa ne ni mu demee rek rek dootuñu leen ko wax combat bi na nag nekkan na combat boo xamante bi ci euh, marle ak nekoré le ci la ñu waroon a bëri mais dafa am ay quelques détails yoo xamante bi ni amoon na ci kii teewe naa ko mba pat mu bëreeg Franc ca Ibamar bëre boo xamante bi nii keroog damaa mujj yéemu kii déedéet kii moo bëreeg farans bëre bu metti ba keneen kii 10 millions yi passé sama kanam mi ngi fa dafa bëree ba yaakaar naa ne bañ koy génne par trois lañ ko génne combat bi neex na trop Papa borom Espagne borom Thiaro yi maa lay ziar. waaw maa lay fay Modou Anta waaw di ziar sama adversaire di ziar gaay fi teew yëpp waaw di nuyu sama gaay waa Thiaro yi waaw. Mm-hmm. macha allah am fula Pokola Balde maa lay waaw maa nuyu. wëlbatikul fay. Mm-hmm. yëkkatil kàpp bi tuuti. Mm-hmm. di nuyu ñëpp gaa di nuyu waa Pikine waaw di nuyu sama adversaire maa ko dalal di nga xamal ni làmb la rek sama combat man ak moom yàggoon na mais ay jafe-jafe kese la woon mais mu loolu mu jeex mu ngi nii jeex na mm-hmm. essentiel jour yi bi rek moo am solo quoi mm-hmm. loolu kese moo si am solo mm-hmm. waaw kese combat bi lan moo waral lan moo waral lan euh, jafe-jafe yi bari woon <laughs> non jafe-jafe yi bari loon yàllaa ko tudd loon rek yàlla moo waral loon duñ bëre at yee ñu at yee ñu weesu at mii la ñuy bëree si yàlla rek la woon mu ngi nii ba mu waree yomb yomb na waaw yaa ma gën a xam. mais est xam nga ki nga jël kii kii dafa garaaw de. waaw kii xam naa ko bu baax. mooy école bi la mujjee wër ndomba yenn ko ba ca kaw dóor ci suuf. waaw loolu du fee loolu problème loolu problème. loolu problème loolu problème mbër la mbër la c'est normal. waaye loolu ñun loolu dawul suñu yaram jooyuñu loolu. loolu dawul seen yaram. bilaa loolu yaram jooyuñu loolu. ok làmb rek. Hmm. yaa ma xam l'essentiel daal moom si jour bi moom. ndax moom sama combat moom moom moo ko yaa ko bëgg jour yi moom na taxaw ñu bëre mm. làmb jeex waaye yaa ma gën a xam mm. waaw di ko daan maa ngi ñaan nag daan ko jël bu amul benn werante jël bu set wicc mm-hmm. waa yaa ma gën a xam mm-hmm. waaw loolu kese la Ibamaar dama ko namu barki yàlla damaa namu Ibamaar am nga fa tàkkusaan bu nekk waaw damaa namu Ibamaar laa lay wax nii mm-hmm. dama namu Ibamaar essentiel daal maa ngi nuyu gaan papaab góor gi ndong bu baax a baax baax di ko félicité ne ko xamal ne ko élection noonu la da ko kiñ fi teg ni Cheikh seex kii damay faat Cheikh Diop di ko xamal ni nag waaw ñun nag askan waa Pikine nag ñun moom waaw ñu ngi koy jox loxo tamit moom na liggéey dëkk bi rek waaw ñu koy nuyu Cheikh Diop bu baax di félicité Pam Ndogu jërëjëf nee na Ibamaar da koo nam Ibamaar lambam la am na fa tàkku saanam gune ba mu fay bëre giri bu Malika ndaanaan yu bëree arène nationale moom gis nga digganteem ak am sita yaakaar naa ne wuu booy molam la jàpp dóor mu daanu jàpp am sita dóor xam nga problème mais loolu dara si làmb. kaaw rek am booy bi. non loolu dara si làmb sorteem bu mujj nam def. sorteem bu mujj dañ koo daan. waaw mu ngi noonu loolu dara si làmb. am si te mu daanu. waaw loolu dara si làmb. booy molam pour mu daanu. man maa ngi xaar loolu. jour maa ngi ñaan yàlla may man dam lu seddu si kawam. di ko wax ne nag am na combat. nee na am nga combat. waaye yow moom xam na ni moom xam naa ne am naa combat moom xam naa ne moom am naa moom xam naa ne am naa combat bu rëy rëy rëy moom tamit hmm. amul combat de bu njëkk ba bërekat bee doon ñëw mais mbër mee ñëw de combat bi di ñëw nee bu njëkk ba bërekat ba loo mais mbër mi te mbër mi dafa sadik mbër mee bon moom lu mu wax rek hmm. fii la ëppee bu dee bëre bu dee xeex lépp mu ngi fii hmm. yee mais combat bi nag yàlla moo dogal mu ngi doog a àndu hmm. moom yàggoon na kaa bëgg man yàggoon naa kaa bëgg mais xañ nga ni deme demee rek mosuma ko tëkku moom defu fi si làmb lu ma deful yaa ngi dégg ay moroom lan danoo war a bëre yee gis nga tey jii moom jëloon na keneen bëre ak moom man maa ngi toog awma adversaire mais yàlla moo dogal ne man ak moom dañuy bëre waaw combat bi nag a ñor ñor na de non si moom nee na ci yow la des boo bëggee xeex kay yaa ko yàggal xeex moom bu arbitre moom ça dépend rek bu arbitre soufflé moom na taxaw dëggal boppam rek moom daal bu arbitre soufflé taxaw dëggal boppam man daal l'essentiel moom hmm. bu arbitre soufflé damay taxaw dëggal sama bopp nee na bu arbitre soufflé kay nga dëggal ngi seeraan samay combat su ma la daane ba pare su ma la daane ba pare noo rëkki laa lay may man du ma arrière te bu arbitre sifflé bu taxawee ma fekk fa jàpp ka daan ko. foo taxaw mu fekk la bi li muy wax nii nii li muy li muy wax nii day neexal nii di wax rek <laughs> day neexal nii di wax rek mais bu arbitre tëyee la ba ñu runkum daje nañ bëre. dinañ bëre nañ xeex moom lu mu bëgg dinañ bëre dinañ xeex. moom bu dul loolu sax moom dane moom ñun ñaar ñëpp ay xale lañ waaye ñun ñaar ñëpp ay xale lañ mais xale dafa bokk la aas moom xale la mais moom yàlla daa def ni moom mag kon nañ taxaw di bëre moom moo daan dama bëre semaine semaine suñu combat yi ma ak moom si ñoo bokk semaine dama ko njëkk a dama daan su ma juumul waa dama daan am cité moom mu daan jël bu rëy xëy toog plateau laaj ma mm. kon moom moo ma laaj moom moo ma laaj man laaju ma ko lan moo waral lool parce que gars yi soxla nañ avant première Reug Reug ak Ama Baldé lan moo waral ma laaj ka dama gis ne sama morom la sama morom la dafa bëri lu rëy daan bi muy bëre maa ngi sama gàlle di seedaan maa ngi sama gàlle di seedaan mu bëre daan ma xam ne kii man ak moom làmb la loolu moo tax ma laaj ka mais ay cadre na ma gante amul sens xam sens mm-hmm. fexe ñaan yàlla réussir si live bi quoi waaw moom bu génnee quarante ma génne sama quarante dana xam kan moo mag aca yaakaar beneen combat ngi ba ñu ngi taxaw di taxawal li nga xam mooy journée 27 février fële ca combat bi nag dafa dox ci diggante ki nga xam ne mooy Lengsi bu Ikiri Falaay ak ki nga xam ne mooy Ramdan Junior bu école de lutte Cheikh Mbaba dañuy bàyyi Lengsi mu nuyoog mbokku internet yi yaakaar naa ne ñu wéyal waxtaan wi Lengsi face à caméra maa ngi lay ziar. waaw ñu ngi di ziar gaa yëpp di waa Pikine di gërëm promoteur bi di ko nuyu di ko ndokkeel waaw moom sunu grand la nit ku baax. daa ñëw pour taxaw pour jàppale waa Pikine pour jàppale làmb looloo ko yëkkati di nuyu sama adversaire ak ñu mu àndal ak ñëpp waaw maa ngi lay béggee. macha allah Ramdan Junior borom mafia bu dëgër borom waa Sandaga maa lay siyaar. maa lay fay di nuyu ñu fi teew yëpp waaw di nuyu waa Sandaga aw ma seen fay ma wax leen rek nañ gën a jàppaat si combat bi ginnaaw bi ma sant yàlla julli si yonent bi sant sama ñaari waajur waa Sandaga amuma seen fay billaahi maa leen di gën a waat ci combat bi ñu gën si jàpp waaw te xam ne bii mooy combat bi mii mooy sama première combat ci laa moom laa gën a jàpp mooy sama combat non non damaa jàpp ne bii bii mooy sama déclassement si sama sama bëre sama lamb bii laa gën a fonk si sama combat bi bii laa gën a xam bii laa gën a def combat daal est-ce ki ngay bëreel daf la may chance lu bëree bëri waaw loolu mën na am ba léegi rek lamb la rek waaw lamb la rek waaw ñu ñaan yàlla yàlla may ñu ndam rek incha allah waaw di woo waa Sandaga nag. di nga leen woo foofu booy bi nga jël jon si naa la jàpp booy guy gi bi yaakaar naa ne am na fu mu jaara moom keroog Iba Mar. normal affaire yi amul affaire yi amul yoot affaire yi moom mbaxalu xeer la rek njëkk a soor la njëkk yàq. njëkk a soor ah. taxu yàq. non na yàgg mën na gaaw. ci ñun ñaar ñëpp. déedéet ci kan lay dépendre. ci ñun ñaar ñëpp laay wax. lu tax loolu. moom bëriw maag ginaar bëriw maag xale mbër laay bëril ndaanaan man ndaanaan la mais moom it ndaanaan la ndax bu du woon ndaanaan du ma bëreeg moom bu may ñëw bu may ñëw làmb cat ba bu may ñëw non ma bu may ñëwee làmb cat ba cat maa koy moom mhm. damay duy esaat lañ si bu jógee pigéen ay jóg du ma mbëru gox laa waaw li ñu ñaan yàlla rek ba bis ba yàlla may ñu ndam. nee na mbëru quartier mbëru gox la gox. waaw loolu moom la intéresse moom moom la concerné. waaw boog ci moom rek moom lu mu indi rek ma fekk ko si boo bëggee mu gaaw boo bëggee ma jéem. waaw man pare naa ci pour lépp pare naa pour xeex pare naa pour bëre. kon kay day gaaw moo tax man la ci ñu ñaar ñëpp kon day gaaw. kay pare ah, kon nice anyway. <laughs> mi ngi baax. non du ma xeex ak moom dama koy jàpp rek daan ko. du ma xeex ak moom non du ma xeex ak moom. non du ma xeex ak moom baa am bëreeg moom rek. xanaa ni mu def ak John Sina moo tax moo tax nga am dut. non du lool du lool mais baa am bëreeg moom rek. Hmm. déedéet John Sina bu guy gi ñëw. non baa am bëreeg moom rek. Hmm. waaw nee na day bëree yow parce que bu xeexee. boo bëree ma jàngal ko gi bëre boo xeexee ma duma ko. <laughs> ñëw waaw kon day waaw kon loolu loolu bëgg naa loolu <laughs> bëgg naa li muy wax lépp. li muy wax lépp waaw bis ba. <laughs> xam nga ay moroom lañ dañoo war a jëflante bu baax a baax a baax daa war a saf bu bu taxawee bu taxawee nag laa la wax de bu abine prix taxaw mm. billaahi man moom sama làmb ñii duñ ma bàyyi ma fen mm. man nga mën ma nga ñàkk maa mën ëpp ma doole def ma lépp mm. bu abine prix ma dal sa kaw soo tawee ñëw boo ñëw ma freiné na laa la wax kii déggalu ma laax kii comme lu ma lay wax rek déggu seeraat rek ñaaw dee rafet dee baax na yàlla yàlla may tala fekkee rek soo ñëwee dama lay freiné laa la wax jërëjëf yaakaar naa ne làmb làmb am na beneen relève boo xamante bi nii ñoo ngi nii ci sama wet muy Sa Thiès junior bu école de liñ Ndiaga Sarr ak ki nga xam mooy Aliou Seras bu Ikiri Jimboori kon yaakaar naa ne Sa sama jege booyu Thiandoum 2 mbëru Présipaté mbëru Père Djili Wade maa lay ziar. delloo ziar sant. ci loo sant yàlla bu baax a baax. naka waat. ñaa ngi sant rek. ah mais Sa Thiès yaa ngi entraîné. bu baax ñu ngi liggéey bu baax a baax. Hmm. ñu ngi liggéey bu baax. Mm. waaw ñu liggéey bu baax mais ginnaaw bu ma sant yàlla julli si yonente bi maa ngi sant samay ñaari waajur mm. di sant sama yaay di sant sama papa di mm. sant càndum bu baax ak borom daaru maa ngi sant tamit sama booyi ma ànd ñoom maa xalifa abdoulaam karbala waaw Cheikh Ndamali. waaw waxal ci Ali Kala ji Ali Kala lu la dugal ci booy bi booy bi nee na tapet nga loolu la ma waaw na jël tapet laa ak tapetuma su ma tapetoon di ma jël lambam di ma dugg sax si arène ndax ñu bari nañ naan. dafa teel dafa teel. te man damaa gëm sama bopp moo tax ma ne damay bëree lijjanti teel a lijjanti licence pour bëree. macha allah nee na dafa gëm boppam teel a lijjanti licence xam ne affaire bi mboccam gerte la. ok day wax lu ko neex rek amaana wax lu ko neex nii di jéem a nekk fii di yaru yaru di wax lu ko neex mais mais ginnaaw mooy sant yàlla di sant su ñaari waajur di sant waa Caaro gi yëpp di sant waa Yëmbal di sant sama waa koñ waa Capit bi. di sant waa RFA di sant waa di sant kii yow may wax kii yow damay ñaan yàlla 27 février rek suñu borom may ma si ndam mais amul may wax ak moom bu xeexee mu duma ko su bëree ma jàpp ko daan ko bu soobee yàlla na eh, yàgg nañ kaa dégg bu xeexee mu duma ko mu bëree ma daan ko waaw na dëggal boppam bu dëggalee boppam laa ma yàgg bakki alxuraan nee na boo dëggalee boppam ngeen yeewi arbitre bi man moom musuma dem si làmb di arrière man moom musuma arrière man du Aliou Sarax mu ne sama ginnaaw ak bébé Saalum mosuma dem si làmb di arrière du ma arrière man doomu yëmbalaa doomu caaree laa sama gars yëpp nag ñoom buur géwél lamb foofu ngay mujjee nan taxaw ci le 27 février bi parce que le 27 février kii waxoon moom barki sëñ Bamba kii amul waxoon mu dëggal boppam rek arbitre ne kon ne lamb ji lamb ji lamb ji lamb la xanaa xamoo loolu lamb jànk la daam si lu mu jugee quoi si lu bëri billaay walaay taalaa dëgg naa lu ne nag mais ba ji bu soobee yàlla lu ma def dinaa ko def si kàttanu suñu borom. mas ngaa bëri. non non mosuma bëri maa ngi doog a bëri. kon nan nga war a fas yéenee ñëwee départ Jimboor yi ñu dar la nga ñëw arène euh, fële stade Iba Mar. kii mooy loolu kii mooy loolu kii moo ko jaay ma xam ne lépp dëgg la. talak fekkee rek yàlla may ko wér may ma wér di ñaanal Pape Sarr mii suñu grand la wax di ko ñaanal wér di ñaanal Caaroy gi yëpp ak ñu ngi sant waaw ñu ngi woo gi yëpp waa Yëmbal di woo Moussa Lamette Bara Gaye jàpp na si combat bi waaw Amadou Xot waaw Amadou Xot tam ñu gërëm sant sama boo yëpp waa cabi lamb ji nag lamb géwél la kat waaw waaw Fallou ngi nii sama doomu ndey la Fallou buur géwél di sant borom daaru Baye Mbaye di sant waa koñ ba yëpp am nga seen fay di sant ñoom ab ñoom ñoom di sant alaaji mbeex na si combat sama yaay di waa koñ ba yëpp am nga seen fay waaw di woo waa capit si combat bi Aliou Seras ban mafia nga bi waaw. ok ban mafia nga yor. ñun ñu ngi ñu ngi sant mafia mbaar bi. dof dofu Sa Thiès a ngi ñëw incha allah kii nagu Seras la ñaaw dee rafet dee. billaay wallaay taala maa ngi sant waa Bagdad Gunaas géej waay gi yëpp maa ngi leen di sant bu baax waa Jaxaay waa Njaareem ñëpp maa ngi leen di sant bu baax a baax. kii kii xam nga lamb moo ñu boole rek. Mm. waaw cër moom dafa dafa baax si doomu aadama. Mm-hmm. xam nga dama koy sant di ko gërëm nag. Mm. xam nga mm. ay morom lañ dañoo war a jëflante bu baax a baax a baax. war a saf bu bu bu taxawee bu taxawee nag laa la wax de bu abine ah. prip taxaw. Mm-hmm. billahi man moom sama làmb ñii duñ ma bàyyi ma fenn. man nga mën ma nga ñàkk maa mën ëpp ma doole def ma lépp. bu abine dal sa kaw. soo tawee ñëw boo ñëwee ma feree na la laa la wax. kii déglu ma laax kii comme lu ma lay wax rek déglu séeraat rek ñaaw dee rafet dee. baax na yàlla yàlla may tala fekkee rek soo ñëwee dama lay feree na laa la wax.